d'abord am na loo xam ne dama ci félicité père Birame Gningue ñu ma wax na suma agent bi sama manager sama papa parce que ba mu jàppee ba léegi du tey moom defe naa bëree bu ma ay millions xam nga ñëw dénk ko sama bopp mooy jàppale ba tey sama papa la comme ni ma ko waxee te kenn du liggéey di bëgg a somé xam nga te expérience am na foo xam ne fa nga koy gisee fa nga gisee Euh, te ku gis combat bi ko nu mu demee xam ni am na lu mu ci jógee comme suma combat moom luñ daan taxaw ndax taxawul tey ba may nekk Espagne sam dox la ma woo ne ma am na ñu may contacter pour gën a lii lii woon lii woon lii xam nga rek diggu mbër des fois xam mooy loolu daal. wala ko père ah. Terus mo lolo mo na kita lo mo ayan de mo mo no yo yang problem zero man lima orang dari fina ko zero na tay lo xamne comme li mo wax experience rek moko man parce que man li am suma digante ak balla muy ma daan muy mu daan mom tay beure ko wa wa yalla moy gënal li beure ko mo yor ko ron bi xam mom mu nekkon ci démarche yoyu ba ak doon waxtaanal xam ba tax na dama ko parce que li wax di somme ñun ba ñuy année bi lu daan bëri ay cinq combats tey bu ñu demee bay am ay benn bu ñu amee ñaar ñett daf ñuy gën te comme ay ndaw lañ nekk ci waar wi di liggéey. kon sa sa combat mu taxaw na. ñoo ngi ci avancé na ñoo ngi ci avancé na xanaa dañuy après rek. compléter daal. mais léegi ma laaj ma laaj waaw. fekk bu dee teew ñu dana xaaral xaaral léegi dama dégg tëmbal sa sànq tam bala mu ne moom daxaatul bëriwaat ak yow est-ce que yow Modou Lo bu làmb doxatee ba booy laaj Balla di nga jot avance bi waaw li may wax lamb suñu liggéey la ñun ay gone lañ nekk duñ jax gone parce que ku def douze ans ci lamb xam nga too ci xale quoi mhm. dañu nekk ci waar yu liggéey bu chaque instant ngay mën di nga mën da ngay bay sa waar bu jeexee après nga ne ci leneen euh, tourné ci leneen dàq bu rek kenn lamb sama liggéey la su may adversaire ku ma lamb boole rek damay bëri ak moom incha allah est-ce que